monté micro bi yow. xaaral xaaral man nekk di lijjanti. jërë ngeen jëf suñu mbokk yi tamit nga xam mel ni ko yéen a lion yi noonu euh, ñu ngi noonu di door a egsi fii ci aéroport Léopold Sédar Senghor suñu gaynde fu gaynde yooyu nga xamante ni ay gaynde faqi dana la ñu xamante ni ñu ngi jóge ba keer ñu ngi juge ba keer ñu ngi doog a arrivé sunu sunu sunu gaynde yaa ngi noonu waaw tey ñu yeyoo félicitation tey ji nga xamante ni fii fii fii fii ñoo fi nekk sunu gaynde yaa ngi noonu di préparer devant la presse pour wàcc sunu mbokk internet yi incha allah dara du leen du leen du leen rëcc ci arrivé yi fii ñu rek ngi yéen ba pale incha allah arrivé arrivé Lion yaa ngi noonu Lion yaa noonu yaa ngi noonu. dinañ wàcc one by one comme ni ñu leen doon xaaree rek comme ni ñu leen xaaree woon nañ koy noonu. voilà comme ni leen ko leen ko doon defaree lépp loo xam ne na ci eh, activité équipe nationale bu Sénégal ñu dem jëlil leen ko waaye tam ngi dem jege jil leen andil leen ko donc Sénégal ah, mu ngi noonu ah gars yi agsi nañ sunu gaynde yu ndaw yi def loo xam ne ah, ci football kenn mosu ko fi dem Coupe d'Afrique ak gagné ñëpp bii sax dugaloo ko fa comme bii sax ah, ah, ah, dugaluñ la ko fa donc mu ngi noonu ñooñ ñoo ak si tey jii nii waaw dem Coupe d'Afrique eh, trophée ya fa nekk yëpp nga jël ko benn moo leen rëcc ci fàttali muy benn trophée muy fair play maanaam doxab jàmm yi nga xam ne ñun moom la ñu ñëpp xamee donc bu ñu amee luñ perte euh, euh, euh, bu ñu amee luñ perte Égypte lenn la muy euh, li nga xam ne moom mooy fair play meilleur macha allah man na kontaan moo ma tee wax dama kontaan ba mënu wax waaye lu ci mun am rek dinañ fexe dinañ fexe waaw dinañ daal bi ngeen am lépp yaa ngi gis waa fédération bi joueur yaa ngi wàcc yaa ngi wàcc président yi ñu ngay wàcc benn benn. man dama naan kan mooy njëkk a wàcc. man dama naan kuy njëkk a wàcc sax. mu ngoog ñu ngi may xamal ne staff bi ak journaliste yi ñoom ñooy njëkk a wàcc. waaye àndoon ak ñoom ñu ngay wàcc noonu. ñii ñoo tax ñu seetaan. ñii ñoo ñu permet Ablaye Seydi Sow a ngoog sama sama sama patron Ablaye Seydi Sow mu ngoog waaye tam ministre des sports Yankhoba Diattara mu ngi noonu tamit Yankhoba jatara mu ngi noonu Ablaye Seydi Sow mu ngi noonu mu ngoog xale yaa ngi xale yaa ngi nii ñu ngi leen di félicité xale yaa ngi wàcc ñii ñoo dem Égypte naka ñu wàccee woon nii ca euh, fële sa Égypte la leen égyptiens yi mun ngeen taxaw foofu rek ñu jox leen coupe bi te xam naa ne yéen nu mën te yéen koy def nan ko xalaate woon noonu la amee. gis nañ bu baax ne nam ko xalaatee woon noonu la amee. mu ngoog. mu ngoog. cette coupe tant attendue finalement qui coupe bi nga xam ni moom la ñëpp doon ah, gis nga coupe bi ah, gis ngeen coupe bi Samba Diallo ndeysaan ça c'est la euh, ba léegi euh, moom mi ngi def euh, liggéey bu am solo fi nga xam ne moo du ci réew mi. waaw def ko ci ndaw sénégalais yi. waaw parce que mën nañ ñi moom moom moom lampam dafay tàkk ay lampam ñoo tàkk ci li nga xamante ni moom mooy bi mu ñëwee diggante ministre des sports ba léegi. parce que gis nga mi ngi nii nar a ñëw ci ñi nga xamante ni moom mooy ah, journaliste yi voilà. ah je suis rek parce que début bi tamit métti woon na si attaquant boo xam ni xam boo dugalul rek après gars yi ñuy wax quoi mais ak soutien coach bi après au fur et bi may dem maa ngi doon monter en puissance et yàlla def na que final bi dugal naa def naa passe décisif et je de ça. alors def ngeen extraordinaire. loolu leen but dugal ngeen ay but bëri je pense ah c'est toujours le travail ah parce que coach bi moom ñun fii nii regroupement yi sax bu ñu def euh, ay match amical bu ñu doon jëlee but même boo dóoree 5 nga jël benn but pour moom defet la après boo pare da lay dawloo après affaire boobu noonu daa dem ba après dafa nekk si ñun quoi bu ñu joué match duñ bëgg jël but loolu moo tax waaw continuité la moom ok merci beaucoup a travaillé y avait il y, avait, une bonne mentalité, il y avait le coach, aussi. Il a tout fait pour nous. Et voilà le résultat. On, s'était dit euh, pourquoi pas d'aller en Coupe du Monde et voilà les performances, on a, joué, on n'a pas encaissé, on, on a remporté. Vous avez parlé de remporter la Coupe du le euh, révélation. coach, il m'a demandé de, de, me projeter tout le temps. Et voilà, et voilà je l'ai fait. Il y, y avait des bons militaires d'or euh, derrière moi. Et pourquoi pas, je, je joue là-bas comme eux. Voilà, maintenant, Pape Demba, euh, on peut juste te poser une question par rapport à ton avenir en club. Maintenant, il y a, y a beaucoup de clubs qui mal classés. Tu peux apporter quelque chose quand même comme, comme quoi euh, Pour aller jouer là-bas Ouais, pourquoi pas ah, C'est mon club, euh, je peux jouer. j'attends mon heure. Tu sais, le football, c'est comme ça. Et pourquoi pas, euh, au retour, je, je pourrais jouer, Inch'Allah. D'accord. ci wolof. Mhm. Euh, ñu daal di jëlaat kan bi mu mel ne comme jël nañ bi coupe du monde bi jamono ji la ñuy séntu. n'est-ce pas mhm. euh, mën nañ koo jël. mën nañ ko jël mais avec humilité dañ koy jël avec humilité. Mhm. dañuy dem comme ni ñu def coupe d'Afrique travail voilà mental bu baax coach bi li mu def ci ñun mu defaat ko ci ñun même du suur yi pourquoi pas ñu jël ko. lu weesu lan moo nekk suñu kanam ak ak avenir bu Pape Demba. non juste. comme, comme tous les autres, hein, à venir bu baax genre am club bu baax mais là je suis concentré avec mon club. ils sont là bah voilà loolu laa bëgg. eh bien félicitations. merci. nekk ba incha allah waa waa boobu travail la tey. Lamine Camara lan mooy secret bi tey dafa mel ne yow rek la ñuy tudd yaa ngi jiitu enchaîné bi yow performance bi. non secret secret mooy liggéey bu ñuy def rek mu ak petit consigne bu ñuy jox rek ci terrain bi. bon ñu ngi noonu rek après résultat yàlla mooy yàlla moo ñu may. coupe du monde bi nag. waaw coupe du monde suñu résultat mooy dem jël dem foofu def résultat yu baax et pourquoi pas jël coupe bi incha allah. sa objectif ak FC Metz. waaw FC Metz moom instant demaguñ bien vrai que demaguñ foofu mais foofu tamit dem montré leen ko euh, ils n'ont pas tort ñu signé loo ñu mais dañuy def defoo lu ñu mën et incha allah pourquoi pas monter équipe bi ci Ligue bi. CAN yaa ngi gën a yéeg euh, n'est-ce pas. waaw alhamdulilah. liggéey rek waaw liggéey rek. waaw yombul moom moo dëgg la non <laughs> liggéey dañuy liggéey rek la ah. non coach moo may repos rek coach dafa gérer sama temps d'entraînement xam na ne dama sonné dafa gérer sama énergie et waaw. merci. bon ah, xanaa kontaan rek eh, kontaan si sama coéquipier parce que daf nañ loo xamante ne depuis des années ñooy def jël ko dafa dafa def loo xamante ne ay jour kontaan si boo gisee booy say moom ko koo gis rek day ree xam doon donc alhamdulilah comme ni ma moo ma permettre loolu parce que daa xam ne maa sonn te dafa gérer sama temps d'entraînement daf may doon dafa ma joxe repos bi dafa ma yu bëri eh, moo tax ma am fraîcheur compétition bi. bon objectif ko mooy dem dem def résultat yu baax parce que instant yi Sénégal mu si dynamique boo xamante ne waruñu ko dagg en fait mu ci dynamique victoire di jël coupe donc pourquoi pas dem foofu def résultat yu baax et jël trophée bi incha allah. bon loolu ñëpp xam na équipe nationale A du équipe nationale U20 du U20 liggéey moo la foy intégré loo te ñun loolu rek mooy suñu liggéey dañuy liggéey liggéey incha allah pourquoi pas ko si bu ñu jëlee dañ defal loo xam ne prouver ko que moom tamit amul tëb. signé Paris wala Barça mii nekk nii Barça dañ soxla xale te boobi xale la petit moo Ibrahima Seck barki Serigne Touba su fu mu waral 5 minutes du ñëwaat Sénégal barki Mame Serafal. Excellences, euh, Monsieur le Président de la République, en ce jour de cérémonie de Monsieur le Président de la République, merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation. ah loolu nag yaakaar naa ni rëy na. wax naa ko sànq. waaw de. naa la oo yërmande président wooñu wooñu wooñu dañu la dañu la bëgg bëgg yee maa kii yaa ñu jarale abi aware préparé neen la woo appel direct Instagram léegi yëpp waaw defoon nañ ci condition yoo xam ne war na tax ñu ñu ñu def nii jaloore bi ñu def tey ah liggéey rek a ah, parce que def nañ ay préparation yu métti yu intense yoo xamante ni xamoon nañ ñun buñ demee foofu dinañ def parcours boo xam dina exceptionnel parce que liggéey nañ ko fii ci. ah coach bi nekk na nit koo xamante ni mën nañu wax ci moom lu bëri parce que def na ci ay ñun ay qualité ay valeur yoo xamante ni ak ay qualité ak valeur yoo xamante ni mën naa ne joueur bi nekk ci équipe bi boo duggee terrain bi même boo joué pour pour sa bopp sax di nga joué pour coach bi parce que gagneur la quoi comme ni koy waxee. ah dañuy dañ leen di rek di wax kontaan nañ gis nañ message yeeg yëpp amuñu seen fay leen wax coupe du monde bii ñu jëm incha allah rabi yàlla defal ñu si jàmm. défier le monde dem ñëfe ji incha allah ci kàttanu yàlla. voilà li nekkoon particularité groupe bi groupe bi. waaw d' accord c'est ça waaw ma ñëw ah. lan nekkoon particularité groupe bi mooy esprit de groupe bi lan moo nekkoon li nga xam ne mooy nekkoon. moom esprit d' équipe la esprit d' équipe la rek. esprit d' équipe la et puis équipe conquérante am booy xam ne ils oh, ont bon état d' esprit xam nañu seen coach li mu bëgg ak li muy bañ et puis ñoom ñu def ko. parce que dañu ñëfe match yëpp match yëpp un par un ñu ñëfe ko